mu doon sàcc kilim yi daj dajji kilim bi nga xam ne mooy saalu sëriñ bi ci biir dajji itam beneen kilim bi nga xam ne mooy kilimu seex Mamadou Mountakha bi nga xam ne moom moom moo nekk ci ci néegam boobu. yàlla dogal na nag euh, gis nañ ko ba jàpp ko mbooloo neex songoon nañ ko ngir xaw ko rey waaye sawe nañ ko ba yàlla dogal nay police ci gaawaayam ak sapeur pompier yàlla dogal na waa ji teg nañ ko loxo mi ngi nii nii nag. xam naa duma yi dafa metti ba ñu ngi ko yóbbu hôpitalu jànnatu commissaire yi taxaw na ci taxawaay bu am solo ndax yable na ka saasa bi mbir amee rek la tànk waa ji ba ba muy daataan génn bay daw rek jàpp nañ ko mhm. jébbal nañ ko police yu jànnatu ñoom ñu ngi ubbi ab lanket ci moom mhm. loolu mooy li nga xam ne moo xew léegi nii présentement lan lan ngeen fekk ci loxo yi lu ngeen fekk mu yor ko waaw non fekk ñu jot ñu fekk ñu mu yor dara waaye xam naa ne daal. Hmm. enquête bi ñu ngi ci parce que enquête bu nekkee ci mbir dam da ngay bàyyi enquête bi dox rek. Hmm. lu mu ko doon daaj def na a def. ñu ngi leen di félicité bu baax a baax. lu mu ko doon daaj présentement ñu ngi nii. sëñ Modou lu mu ko doon daaj waaw ci kaw la ñu doon ko daaj xamuñu exactement lan la bëggoon. Hmm. lan la bëggoon. ok mais pour l'instant daal. ok leer na. mag mag la wala xale. waaw war naa mën a am euh, vingt sept ans wala wala trente ans yi quelque ans. kooku xale la. pour le moment loolu rek la waaw. Euh, ñu ngi leen di gërëm nag bu baax a baax. Hmm. jërëjëf am na solo. di jël ci xaar xaarim li mu doon wax noonu ci opération moto yi. Hmm. fan yi gis ngeen démb ak bërki démb police ànd ak daayira xuddaamul xadim hmm.